asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi ñu ngi leen di siyaara di leen nuyu tey nag ñu ñëw yéen ci benn jotaay boo xam ne dañuy waxtaan ak yéen ci benn xaatim boo xam ne turu yàlla yu ñu ko liggéeyee mooy rasaaxu bu yàlla woowu di yaa rasaax inna ansala risquna ma lahu min nabaat mboolem xeetu wërsëg boo xamante ni dafay nekk ci kaw suuf doomu aadama di te mel ni xaalis jur ci yooyu itam xaatim bi daf ciy dox képp koo xam ne yàlla dafa dogal ngay yëngu ci wàllum wut xaalis wala ngay yëngu ci lu mel ni or wala jamaa yàlla dafay dogal xaatim bi saa soo la ko bindalee bañ boole ko ak li nga xam ne moom ngay wut muy xaalis ak jamaa yàlla sunu borom bi tabaaraka wa dina ko barkeel ba nga xam ne koy gis ñu bare bare di ko ci wàllum ñuy wut sàkku lu mel ni xaalis wala lu mel ni or wala lu mel ni jamaa muy xaatim boo xam ne dafa am ay rawxaaniya yu yu ko wër yoo xam ne benn bu ne ci ci dundam ci wàllum koom lay yëngu kon muy xaatim boo xam ne am na solo lool ci wàllum wut képp koo xam ne yaa ngi sàkku alal ak nu mën a demee wala nga am xéewal bëgg mu dolleeku yooyu yëpp daf ci daf ci dox bu baax a baax a baax ndax xaatim bi da ngay gis ñu dugal ci biir ayatul kursi yu dugal ci allahu kun fa yakun waaye dugal ci ismullahi yi nga xamante ne ñoo ko wër itam mu am benn talsam boo xam ne talsam bi talsamu turu rawxaaniya or la ak xaalis ñaar yooyu dafay ñoddi li nga xam ne mooy mooy liggéey bi nit ki di liggéey buñ ko defalee nit ki ba pare dañ di jël turam dugal ko ci biir xaajo bii nii moo xam li muy liggéey bu fekkente ne ni dafay liggéey ci wàllum or dañuy bind fii turam bind li muy liggéey bu fekkente ne wàllum xaalis la itam dañ ko fiy dugal nga xamante ne ni bis bu bis buñ ko ci dugalee rek incha allahu rabbi yi dana gis ak yokkute te itam yàlla dina ko musal ci li nga xamante ne nii mooy yàq mooy yàq li nga xamante ni mooy ab liggéeyam kon xaatim la boo xam ne bu ama am solo la waaye nag ñu wërale ko ak kaaraange yi nga xam ne moom mooy turu yàlla yooyu dox ci kaaraange muy yaa xapiisu yaa maanihu yaa ngi ko ci gis fattaaxu rassaax nag moom moo ko tax a jóg xaatim bii dafay ubbi nit ci wàllum wërsëg maanaam xaalis ak li nga xam ne mooy jamaa ak li nga ne mooy or kon xaatim la boo xam ne ñu ko fiy defar lu bëri nañ ñu tey nag ñu jëloon ko indi leen ko ci seen jotaay bi muy ismu boo xam ne ismullahi xaas la saa suñu ci defee li nga xamante ne def nañ ko ci ba noppi rek insha allahu rabbi ci kattanu borom bi di nga daal di gis li nga xam ne moom lañ la wax bu soobee suñu borom bi subhanahu wa taala kon nag dañ leen di indil ñaanu bismillahi ensemble boobu rek moom lañu tëj tey allahumma inni as'aluka bi anni shahid innaka anta allahu la ilaha illa anta wahidul ahad samadul lasi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufan ahad wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala